defoon nga ko daaw defaat nga ko ren lan mooy li nga yëg tey bi nga demee ba yóbbul nag yi sëñ Abdou Aziz Al Amine non sentiment de fierté la xam nga li ñuy def tey mën naa ni benn rite familial la boo xam ni mi ngi départ ci suñu maam moo ko daan def suñu papa ñëw di ko def aujourd'hui c'est tout une famille qui le fait ñun ñëpp ñoo koy def je suis à droite à ma suma mag suñu xalifa mooy suñu aîné il dégage beaucoup il fait beaucoup d'efforts pour affaire bi réussir suma ay rakk aussi nous façon la même chose aujourd'hui mën naa ne c'est tout une famille yoo xam ne tout une famille ñoo jóg di def li seen maam doon def essayer de satisfaire Tivaouane mais gëm naa ni kontante lañ ci am ak mbégte ndax lu jëm ci li ñuy def defaluñ ko kenn gudd yonent bi sallallahu alayhi wa te ñun ñëpp ñoo bokk yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lépp luñ ci def rek lu war la lu jaadu la pour askan bi la pour xadra malikiya la aussi gis nañ euh, sëñ Abdou Aziz Al Amine def na wax na def na témoignage euh, ñaax na la aussi yow ak sa ay ay mbokk loolu lan lay def ci yow. waaw loolu mën naa ni contentement la ndax ñun saabuñu bu ñu sañoon rek suñu sëriñ daf ñuy ñaax di ñu sas di ñu digal mais xam nga ni ñun sëriñ bi ñu am sasuñu waxuñu dara daf ñuy ñaax rek ci ñu war a gën a góorgóorlu xam aussi fi ñuy dugal suñu alal kémtalaayal nu mën a doll ñu xam jéem ko dugal ci li nga xam ni mën naa ni on le fait pour toute la population sénégalaise et on le fait pour toute la jeunesse et on le fait pour toute une famille c'est très normal aujourd'hui lii bu ñu ko defee rek dañu bëgg a beneen voie ndax tey mën naa ni on on essaye rek de montrer la voie à la jeunesse un tout petit peu parce que ku mës a wax jeunesse rek da nga ci xalaat mooy jël sa alal def ko feneen dugal ko ci yeneen yoo xam ne du wàllu diine mais lii dafay wane ni rek solidarité islamique la ñuy la ñuy jéem a incarner pour au moins wane ni l'islam tarixa Cheikhu Tidiane tarixa la bu solidaire tarixa la boo xam ne dañ ko war a ci dañ ko war a dooleel l'islam aussi ñun en tant que jeune islamique dañu war a wane ni l'islam diine la bu sell diine la boo xam ne ni dafay war a jàngale dafa ànd ak solidarité diine la boo xam ne tam dafa laaj bienfaisance moo tax ñu ciy def li ñu ciy def rek pour montrer à la jeunesse que ni am nañu yoon boo xam ne bu ñu ko toppee dinañu yóbbu ci yoonu siraatal mustaqim ñaata nag nga jënd ak nan nga defee répartition bi. ëpp na ay centaine vraiment mën na ci li ñu comptabiliser bi ñu def la semaine passée mais jàppal ni li ci ëpp doole ko yóbbu jox ko yóbbul nañ police yóbbul gendarmerie yóbbul préfet yóbbul yeneen nécessité yi nga xam ne soxla nañ ko ak yenn këru diine yi nga xam ne ñu ngi fi ak suñu ay dëkkandoo li ci des nag ñu fas yéene ko terale suñu gan yi di wax ni même le jour du gàmmu dinañ def ay repas gratuits yoo xam ne dañ koy def fii dinañ rey lu mat ay juróomi nag yoo xam ne wala lu juróom-benn loolu eh, bokkul ak suñu ay ganu bopp sax mais dañ koy togg def ko ay repas pour képp pèlerin bu ñëw Tivaouane di nga mën a sukkandiku am na association yu fi nekk aussi yoo xam ne jàppale nañ leen jox leen ay ceeb jox leen ay nag pour tam ñoom ci seen côté ñu mën ko def même organe de presse yi aussi am na télévision yoo xam ne ku ci ne offrir na leen nag ndax am nañ ay daluwaay ñu nag ñu jàppale leen ko. góor gi tàllal na leen ci des ñoom itam tàllal. fu yu daatu tajri ila yawmi nafxati. hada rasulullah. bi tàllal na ñeeni tam ngeen tàllal tàllal leen sëriñ baa ngi ñaan sëriñ baa ngi ñaan wax leen amin